الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bokk yi tëddee salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci àjjuma ju tedd ju ñu nekk di ñaan borom bi subhaanahu wa taala moo nangu suñu ay jaamu nangu seeni jaamu neen ko miine ci jàkka ji ñuy faral di léeg-léeg ànd ak yéen di fàttalante ci nafar suñu wàllu diine te loolu quraan moo ñu ko digal borom bi moo ne subhaanahu wa taala yonent bi alayhi salaatu wassalaam aoudu billahi min alcheytaan arrajim wa dakir fa inna tanfaul muminin yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam del fàttalee saa boo xamee ba fàttalee dana am kenn si ku yàlla ku jëriñu nangay ngay fàttalee kon loolu képp kuy ab jullit am lu mu xam ci lislaam warugar la ci moom muy fàttalante ak ay mbokku jullitam loolu moo tax tey ji incha allahu ñu fas yéene jéem a ànd ak yéen ci benn tomb boo xam ne mbokk yi njiitu woon wax nañ ci lu am solo muy thème gentral muy thème bu mag bu yaatu buñ ubbi woon fii defe naa mbokk yi njiitu wax nañ ci lu am solo ñun tomb biñ ci jël fas ko yéene fàttalante ak yéen insha allahu taala mooy kayfa kaana yataamalu annabi sallallahu alayhi wa sallam maa shabab kayfa kaana yataamalu annabi sallallahu alayhi wa sallam maha shabab mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka la doon doxale nu mu doon jëflantee ak saxaaba yu ndaw yi jeunes yi nekkoon ay saxaaba nekk ay ndaw dugg ci lislaam nu mu doon jëflantee ak ñoom muy tomb boo xam ne bu am solo la fii jamono toll rawatin suñu réew ndax ñi ëpp ci population Sénégal bi Sénégal bi ay ndaw lañ kon nag dana jaadu ñu fàttalante lan mooy taxawaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wetu ndaw yi nga xam ne ñoo ko waroon moom alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla daf ko def ab yonent waaye defal ko xéewal may ko jikkoom rafet lool jikkoom nooy lool mu mën a jëflante ak ñëpp loolu tax na lislaam fu bari àgg na fa ci àddina bi du jël sama ko fa yóbbu de jikko ma ko fa yóbbu moo tax yónnente bi alayhi salaatu salaam dafa yar ak maas génération boo xamante ni bii ay ndaw lañ waroon ko mu def ci ñoon ay mbir yu am solo mooy tarbiya mu yar leen ndax nit ki fekkee amul yar daanaka mën nga ni mook mala yi ñoo yem nit ko amul yar lu mu am am xam-xam du ko jëriñoo kon yar na leen benn ñaar mu yërëm leen ref am yërmande ci ñoom ñeewante leen leen seen bàyyi bëggal mu bëgg na lu ko ëpp yërëm leen dafa am solo ñetteel bi mooy mu leen di encourage ci mbaax di leen ci soññu ci góor góorlu di leen pousser ci mbaax di leen soññ ci lu baax di leen tagg ku def lu baax ak mu ni vraiment yow def nga liggéey bu rafet di la encouragé te loolu dafa am solo ndax dañuy wax ci tarbiyeen yi maanaam asanaau lahu taasirum fi nufus wala fi nafs ñu def lu baax nga encouragé day tax gën a sawar ci ci mbaax gi mu def ci gën a góorgóorlu olof da koy lépp maanaam waaw góor day yokk ngóor a nga gën a sawar kon daana soññu ndaw ñi ci lu baax la ñuy def moom yonent bi alayhi salaatu beneen tomb bi mooy jox leen respect ay ndaw lañ de mais mu respecté leen respecté seen xalaat dafa dafa am solo tam na ndaw la mais dafa am xalaat nga respecté xalaatam di ko laaj idéem lu ci mbir mi mu wax lii leen la ci yonent bi li mu ak ndaw ñu ko waroon ndaw saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain yonente bi alayhi salaatu dafa leer yàlla nee na yonente bi yow de yërmande ju ma def ci yow yu yaatu ak xol bu nooy jikko yu rafet moo tax saxaaba yi daa wër yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu mu toogee dañuy def ni géew wër ko ndax lan du wax lu ñaaw lu rafet lay wax jikko ji rafet la yor du wax kàddu gu ñagas alxuraan fekk na ngay wax kàddu gu ñagas wala nga jikko ji ñaaw ñépp dem bàyyi la fi parce que nit nit boppam da koo jege soo ko cafee rek mu bàyyi la comment doon na man na daa jox gëdd yonente bi daal ko jox këdd ndaw ñi ñu ko jege ba tey bokkuñ lim lim jëflante ndaw ñi mooy jox leen ay masuliyaat jox ay cër yu mag ci lislaam ñoom ay ndaw lañ ay jeune mooy de vingt wala vingt ans wala vingt et un ans mu jox la cër bu rëy ci lislaam mag ñi ne fi loolu lan lay tekki da bëgg a poussé ci mbaax soññ la nga nga xam ne yow mi kat man ngaa doon dara ci lislaam bu ëllëgee da lay soññ la cay firnde mooy yonente bi bu baa yar ndaw saxaaba yi day bàyyi xel yu am solo mooy dana bàyyi xel sa xel fu mu toll sa xel al aql dana bàyyi xel tam sa ruux parce ruux dafa am lu mu laaj xel am lu mu laaj day bàyyi xel tam sa yaram parce que corps dafa am lu mu laaj lu soxla ñett yu moom moo composé doomu aadama nit xel la ruux ak yaram mooy al aql ar ruux aljasad yi moo composé doomu aadama comment donc ñu ni loolu moo ko composé noonu la ko yàlla bindee lu ci ne dafa am lu mu laaj nag ruu am na lu mu laaj mooy jaam yàlla bu sell mooy dundal ruu mooy tax sa ruu di dund na mu war a dunde jaam yàlla bu sell bak ah, xel dafa am lu mu laaj mooy xam-xam bu set xam-xam bu leer léegi tax sa xel ubbeeku yaram am na lu mu laaj mooy lekk gu am qualité ak di noppalu ko yaram da koo soxla fa ngay lekk loo xam ni dafa baax sa yaram mais ngay noppaliku parce que nit nga doo doo machine fa ngay noppaliku. yonent bi jox ci ay exemple yu bari yu mu jëflante ak ndaw ñi ñu ko waroon euh, Anas day wax ni radiyallahu anhu dafay wax ni dafa am bis nee na yonent bi alayhi salaatu salaam kër ay soxnaam mooy ay soxnaam kër gi am ñetti waxambaane ñetti ndaw ay jeunes yu ñëw ci ci kër yonent bi ay soxnaam. loolu ñu xam ne ay ay jeunes lañ mooy niñ joxale parce que jeune ñaar rek mooy sawar am kattan du gaaw a sonn mais mag dafay gaaw a sonn parce que cër dafay tàmbalee màgget nga yëg coono mais ndaw moom day am force day am kattan day sawar ci yëf yi xeeti jaamu yàlla ñu ñëw ci kër yonente bi alayhi salaatu daal di laaj ay soxnaam ni waa yonente bi moom nu muy nu muy jaam yàlla ci këram. parce que bu dee jàkka ja xam nañ na fay jaamu yàlla ak penc mi mais këram nag duñ fi dugg yéen yéen a ko gën a xam ay soxnaam parce que nit ki ko gën a jege gën koo xam ci ni ñëpp mooy soxnaam da dalaa jege ñu ne ko ñu ne ni ñuy jaamoo yàlla ci këram nag biir néegam dañ bëgg a laaj soxna yi ah moom day bu gudd yotee dana julli fukk rakaa ak benn du ko wees nag du ko dépassé mën naa yàgg trop mu jàng ci ay saari gudd taxawaay yàgg rukkoo yi ak sujjóot yi mais du dépasse fukki rakk ak benn léeg-léeg day xaaj guddi gi ñetti xaaj nelaw ñaari julli benn xaaj bi léeg-léeg mu julli ñaari nelaw benn xaaj bi en tout cas du naafil guddi gi yëpp moom du ko def mu yónnent bi alayhi salaatu wasalaam lu tax yaramam dafa dafa laaj nopp noppaliku war di nelaw parce que nit la am na cërëm nu bu wa waaye doomu aadama la bachar la doomu aadama la war di noppaliku yaramam dallu mel na ñoom dañu ko xeeb ñun ah ñun tamit daal kon li muy def ci kër te amul solo daal bëriwut xeeb ko daal ndax xaaluuxaa nañ koo xeeb jàpp na lu tuuti la beneen bi ñëwee soxna yi ne ko ah ñii dañoo fi ñëwoon di laaj nooy jaamoo yàlla sa sa biir kër sa biir néeg guddi gi waaye day mel ni daal dañ koo xaw a xeeb li ngay def mu leen yéen a ko wax ñu ne ko waaw loo am solo mu leen man maa leen gën a ragal yàlla téeméeri junni yoon gën leen koo xam yàlla parce que moom ma yónni te yónniwu leen jox ma lislaam maa leen gën a ragal yàlla téeméeri junni yoon gën a xam li mu digle gën a xam li mu tere maa leen gën a xam fopp waaye téewul nag lu am solo laay wax damay woor léegi-léeg du woor damay woor di dog woor di dog damay julli di nelaw usalli wa arqut may julli mais damay tëdd nelaw nag si nit laa damay nag takk soxna parce que njaboot ci laa koy ame damay denc am ay soxna parce que nit laa mu ne képp koo xam ni xeeb na li ma nekkoon mooy di woor di dog léeg nga woor léeg-léeg doo woor di julli guddi xiyaam mais nag ngay nelaw dal di takk soxna ba war a takk soxna te am mooy képp ku bàyyi lii loolu doo jullit fa man bi an sunnati fa laysa nii la wax képp ku fi bàyyi li ma nekkoon muy sama sunna même boo ne jullit laa doo jullit yéen tamit moo ko wax de fa laysa minni mooy nekkoo jullit mu jàng foofu lan alwasatiya muy digg dóomu ay ndaw ñoo ñoo laaj parce que laaj bi li mu teg mooy lii ay ndaw a koy def parce ñoom ñoo googu cawat mu leen de dudd nii nga xam li ñu tuddee ak ruhbaaniya mooy ne ci àddina rek wan ginnaaw àddina doo am soxna doo am ko doo am dara jaamu yàlla rek lislaam ko mu loolu ak ruhbaaniya li ñu tuddee tarkul tarku tayibaat yu baax yi neex nga koy bàyyi di ko xañ sa bakkan du lislaam jigéen dafa yaram da ko soxla parce que ni ni ni ko yàlla mooñe faaw muy sëy ba suñu vital la nit du koo soxla sëy nit du koo soxla sinon day am problème kon sëy ci la bokk kon nañuy takk soxna di sëy ak ñoom nelaw ci la bokk yaram day sonn nangay ngay julli guddi mais nag del nelaw deel woor di tuyaaba mais nag léeg-léeg bul woor dogal yooyu la jàng moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ni muy orienté xale yi ba mu bàyyoon dañuy xëy xëy rek indi ci la lislaam lu bees muy déedéet corriger correction dafa am solo boo waree corriger beneen bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf daa waxtaan dialogue xiwaar waxtaan waxtaan ak xale yi jeunes yi les jeunes la waxtaan ak ñoom xool seen xel toll abi umaama nee na dafa am bis ñu toog ak yonente bi alayhi salaatu benn waxambaane ndaw ñëw ci moom comme ndawi sama kaar sala sama genre gi rek ndawi jamono xaw seen bakkan tuuti ñu ne bi ndax doo ma permettre may may njaalo jigéen ñi garaaw la wax ndax doo ma may ndigal may génn xale jigéen di njaaloog ñoom saxaaba yi buur ba kóodóor mun leen ma ma may bàyyi leen ko ñu bàyyi ko mu wax ba pare yonent bi ne ko jige si ma uddun ñëwal fii mu ñëw mu toog ni foto yonent bi alayhi salaam mu ne ko waaw dialogue bu am solo mu ne ko waaw ndax bëgg nga yow li nga bëgg a def mooy njaalo ndax bëgg nga njaalo ak bëgg nga ku njaalo ak sa jigéen bañ ko laa wallaahi déedéet lu ki bëgg ma ko mukk ku njaaloo sama sama sama sama ndax bëgg ci ku njaaloo ak sa yaay a njëkk bëgg ko ku sa yaay yow mu ne ko ci yàlla ñaana ko yàlla mu ne ko ndax bëgg ko njaaloo ak sa doom bu jigéen waa ji ne ko déedéet wallaahi bëgg ko mu ne ko ndax bëgg nga ko njaaloo ak sa sœur sa mag sa rak bu jigéen ndaw di ne ko déedéet bëgguma ko mu ne ko ndax bëgg nga ko njaaloo ak sa tànk sa yaay bu ndaw ndaw bi ne ko déedéet bëgguma ko mu ne ko ndax bëgg nga ko njaaloo ak sa sa bàjjan amatuk sa bàjjan ndaw le ne ko déedéet mu ne kon nag bul njaaloog yaayu jàmbur parce que jigéen boo seen yaay la yaay jàmbur la wala bu dana doon yaay bokk incha allah bul njaaloog yaayu jàmbur bul njaaloo ak doom jigéenu jàmbur bul njaaloo ak rakku jàmbur wala magu jàmbur bu jigéen bul njaaloo ak tànta jàmbur bul njaaloo ak bàjjona jàmbur parce que ñii kenn bëgg ko kenn ko bëgg nit njaaloo ak sa yaay wala sa doom bu jigéen walla sa tànta wala sa sœur wala sa tànt wala sa bàjjen kenn bëgg ci ñun kon nag bu ko def ci jàmbur yi xoolal loolu te ndaw ko laaj yonente bi boo doon tey da ko boo doon tey sama classe da koy mbéj looy wax ni yow seen nga mbéju ko de da ko kaay pour dem mën a jàngal ba mu yonente bi alayhi salaatu salaam pédagogue mën a jàngale mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko waa léegi ñu ngi waxtaan ma ak yow est-ce que bëgg nga ku njaala yow ak sa yaay waa ñun déedéet mu ne bul bul njaaloo ko yaay jàmbur est-ce que bëgg nga ku njaaloo ak sa doom bu jigéen déedéet bul njaalo ak doomu jàmbur bu jigéen est-ce que ba nga ko njaaloo ak sa sœur sa mag wala sa rak bu jigéen déedéet bul njaaloo ak sœuru jàmbur est-ce que ba nga ko njaaloo ak sa tanta déedéet bul njaaloo ak tanta jàmbur est-ce que ba nga ko njaaloo sa bàjjan déedéet bul njaaloo ak bàjjanu jàmbur wala ba daan ni allahuma ixfir danba wa tahir qalba wa xassin farja aw kama qaala alayhi bi ni yàlla kii de yàlla na nga ko jéggal bàkkaaram kon mi ngi ko ñaanal njéggal gi yàlla yàlla na defal xolam ba yi ñaaw yi ne génn ci waaye yàlla na nga ko sàmm ba bu mu njaalooti waaye dina keroog sama xel génn ci affaire njaalo yi waaye jee ko wax kon kooku mooy bi ñu mu doon jëflante ak ndaw ñi lu am solo beneen bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu joxe exemple dama koñ tuddee rabiatu ibnu kaab al aslami nekkoon jeune mais nekkoon saxaaba bàyyi ay mbokkam jóge di bilaadu aslam ci ay mbokkam la jógee tuub dugg ci lislaam boobu mi nga am 15 ans la am fukki at ak juróom ñëw Madina fekk fi yonente bi alayhi salaam bi mu ñëwee mu tuub dama bëgg rek man féetewu di la liggéeyal am nekk sa sa sa sa sa booy wala suñu jamono ñu ko xam ne nekk sa bëkk nekk di la di la doxal yenn soxla yi daal soxla yi ndaw ndawaan yi kon defee amul amul mbokk ci Medina mu dem ca jàkka ja fa dëkkoon moom Rabiatu radiyallahu anhu nee na bëccëg gi dama yontu lu mu bëgg rek ma dem doxale ko su guddee ma tëdd jàkka ji su ootee su am soxla ma dem ba benn bi seen sens ne moom ne ma waaw Rabia loo bëgg ma ñaanal la ko yàlla parce da koy fay comme mi ngi sonn ngir yàlla dana ko récompenser moo ko jàngale man sana ilak maarufan fa kaafi u kama xaala kon defal lu baax ne ngeen ko fay su fekk mënoo na ko ñaanal yàlla ba nga xam ne yow mi kat ba man da nga koy fay ñaan ko yàlla mooy jazakallahu xayran ñaanal ko yàlla parce que defal na lu baax ba yàlla moom li mu jàngal da koy pratique moom yonent bi mu ne mu ni rabiatu kaay léegi loo bëgg ma ñaanal la ko yàlla rabiat ni tekk li yonent bi léegi may ma dem waxtaan ak sama xel ba xam loo may ñaanal doon ko yeewu moom tam ndaw la mais dafa yeewu ñëwaat nañu te ma daal léegi am na lu mu bëgg ñaan ma ko yàlla mu ne ko lan mu ne ko mu raafaqataka fil janna yow man xëyam foo ma dëkk fa ak yow ca àjjana dama dama laa bëgg indi mu teg ma bi ko waaw est-ce rek mu ne ko man lii rek laa sama ko am fële la nag moom rabia nag ma daal loolu mooy sama yitte ëllëg daal yow man xëyam foo nekk naa fa nekk yow ca àjjana mooy sama bëgg nga ñaan ko yàlla xam fa a aynni ala nafsika bi kathari sujud kon nag ma jàppale loo ma jàppale na ngay bëri say julli julli farata naafil la da ngay bëri say naafil la kon nga déggee ci important julli am ci jullit bi mu ko na ngay bëri say rakk say naafila nga yu ma xiyaam fa ma dëkk man faa nga mën faa dëkk ak man xoola rab yaa ndaw la mais moom xoolu àddina boo doon sama kalaat naa yi man kay naa am kër gu baax almadi ñaa ma am kër gu baax almadi exemple laay joxe wala 4 4 baax naa ko am wala naa am fonction bu baax ci réew mi nga xam yooyu lay ñaan affaire addina moom déedéet yomal xiyaam lay ñaan su ma dee daal yomal xiyaam foo nekk naa fa nekk ak yow alayhi salaatu bi am ndaw bu ñu tuddee Ibn Abbas ñu bari xam nañ ko fii radiyallahu anhu dafa ne dafa ne dafa am bis ma ànd ak bi mu war nii daaba daa mooy togg togg mooy ba waree nii mu togg sa ginnaaw la mooy togg demam yàgg mu ni ma yaa gulaam mooy yow ndaw le xulaam nag ci arab mooy nit bu feree ba ka muy am 10 ans loolu xulaam lañ koy tuddee ci arab mu ne ko yaa xulaam inni uallimuka ngi lay xamal ay baat yu am njëriñ yu lay jëriñ ci àddina ak ci àllaaxir boo ko jëfandikoo ndaw la de mu koy dénk waaw léegi ndaw la mu koy dénk pour wax na ni mu fonkoon ndaw moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko ihfadillaaha yaxfazuka ihfadillaaha tajidhu tujaahaka mu ne ko na nga bàyyi xel sa borom ci lim digle nga koy def lim tere nga bàyyi ko kon jafe-jafe yoo am rek xat-xat yàlla génne la ci yàlla dafa am fulla moom jaam mi nag boo ko dee mu lay dimbali moom bi mu ne kon na nga bàyyi xel yàlla ci def lim la digal bàyyi lim la tere ba nekk ci xat-xat mu génne la ci moom borom bi mu ne ko booy booy ñaan demee bay ñaan na nga ñaan kenn mooy sa borom subhanahu wa taala wax ko ñaan ma yonte bi te yonte bi ma koy def waxuma ñaan ma de ñaanal yàlla sa borom da ko wax wa ida saalta fasalillah booy ñaan ñaanal yàlla booy ut ndimbal ut ko ci yàlla wa fa fastaan billah booy ut ndimbal kenn am ndimbal àddina alaxira mooy borom bi subhanahu wa taala moom amoo nit nag mën naa am dara la jàppale ci li man moom xudraam man nag par exemple ma ne ma ne euh, sama waa ji Ahmed dama may téléphone parce que naa am nga ci droit mais xam ne nag yàllaa ko moom kenn mu dulaa ñaan ku dul ku dul yàlla kon demel ni eh, waxtaan wi xam naa ne jeex na léegi lépp lu jub ci wax ci yàlla lu lañ bëgg a ma fàttali ak mbokk jërë ngeen jëf لله حمدا الوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم صنعك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wa safiyuhu wa xalilu xayru nabiyin arsala arsalahu llahu ila alaalami kulli bashira wa nadira allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad salatan wa salaaman daimaini mutalazimaini ila yaumi din ayuha almuslimun usikum wa nafsi almudniba bi taqwa llahi taala wa taala amma baad fa ya ibad allah مرض اجتماعي خبيث وفيروس وبائي فتاك وسرطان مدمر للشعوب حاربه الإسلام حربا لا هوادة فيها ذلكم لأن عواقبه وخيمة ونتائجه خطيرة إنه العصبية والقبلية والعنصرية والطبقية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 feebar bi gën a bon te mën a dal ab société virus bi gën a garaaw ci détruire ab société mooy li ñuy tuddee farfarloo ak gënante ci wàllu xeet l'islam bañ ko lool xeex ko xeex bu bu métti bu yàgg ba am ci ndam ba am ci ndam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnul àdduna ñi daawul bokk jataay di bokk jataay di taggante di gërëmante di ndawante sallallahu alayhi wa keroog bi benn saxaaba bu mag Abu Dar al Ghafar waxee Bilaal na ko yem na sawdaa doomu jigéen ju ñuul bi mooy doomu ku ñàkk solo bi yonent bi dafa mera mera mera mer ba saaba yi tiit ba Abu Zar dafa tiit ba woo Bilaal tëdd ci suuf teg lexam bi ci suuf ne Bilaal jokkil sama lex lex bu ñàkk fayda bu bon bi foofu la yonent bi àggoon ak saaba yi ngir xeex gënante ci wàllu xeet ak wàllu juddu ak wàllu deret jamono yii nag daa mel ni dafa xewaat ñun ñëpp mi ñuy xeeñ mi ñuy xeeñ surtout Sénégal booy déglu nit ñi li ñuy waxee léegi dafa mel ni dañoo bëgg a delloo si démb démb gu yàgg sax laay wax ndax démb gu jege ñi sax loolu amu ci woon ci ñëw ci kanam tuuti ñun sénégalais nangu nañu nekk ay wolof ay alpulaar ay séeréer. ay joolaa ay mande mais kenn ci ñun gëmul ne moo gën keneen ki danañ kafante danañ tooñante danañ ci ñëw waaye lii bëgg a dugg ci réew mi léegi ba dugg ci diine ji ci tarixa yi bu bu ñu ko seetaanee ba mu law fi du bàyyi kenn ci dëkk du fi bàyyi kenn fan yii maa ngi dégg ay nit di def ay déclaration bi garaaw garaaw yoo xam ne man jaaxal na ma nu ñu leen bàyyee noonu rek mu mu ñu rek mu comme ça ñu def seen déclaration rek dem ñibbi ku toog ci benn waxukaay naan diw ak diw ak diw ànduñoo ak diw parce que ñoom ay taalibe lañ c'est-à-dire diw du taalibe c'est-à-dire léegi pour nga nekk président la république du Sénégal il faut nga nekk tijaan wala murit wala ibaad loolu bu ñu ci duggee dañ ci génn. léegi dañoo bëgg a dugalaali pour nekk président du Sénégal foo nga nekk séeréer walla nga nekk njaago bu loolu passé foog nga nekk jullit wala nga nekk catholique bu loolu passé foo nga nekk murit wala tiyaan loolu buñ ci duggee dañ ci génn duñ ci mës a génn duñ ci mës a génn foo ñu def attention bu ñu créer suñ bopp ay problème fii li fi masoon a xew mooy lu jot lu nekk ñu seet ki jàpp ne moo ko gën a mën ñu jox loolu loolu fi mas xew moo ñu juróoloon jàmm ji am ba tey la aussi moo ñu suñ ci bëggee génn na yàlla bu ñu yàlla xiir ci ñu génn ci mbokk julli lislaam du nangu ñu gënante ci ay xeet du nangu ñu gënante ci juddu parce que xeet ak juddu doonuñ ci dara nit la muy gën a nawleem da ciy doon dara amul ci ñun kenn ku doon dara ci fi mu juddoo man kenn laajuma man kenn laajuma woon ne ma ndax Sénégal la nga bëgg a nekk ma ne waaw foo bëgg a wolof nga bëgg a nekk wala alpulaar ma ne noo man bu alpulaar bu gàlle laa bëgg a nekk kenn laajuma ko damaa màgg rek yow gis sama bopp situation bi ma nekk kon doonuma ci dara kon mënuma ko mënuma cee gën kenn nit la muy gënee dara moromam da cay doon dara danañ ci ñëw alxuraan borom bi tabaaraka ko taala moom mi ñu bind te tàgguñu def ñu ay wolof ay séeréer ay njaago ay man tàgguñu moom moom moo nañu du ngeen gënantee ci li ngeen doonul dara su ngeen bëggee gënante kaay gënante leen ci li ngeen doon dara mooy ki gën a baax ki gën a jub ki gën a amal njëriñ société bi dara ngeen kenn ku ne mën naa def effort ba amal njëriñ société bi ba gën ci société bi ëpp fi jàmm dàq fee liggéey ëppal njëriñ nit ku ne mën na ko ku ne mën na koo jéem boo amee tawfiq yàlla kon ku àgg foofu bu la neexee gën a yàggal borom bi tabaraka wa taala wax ci alquran suratu xujuraat yaa ayuha nnaas waxul yaa ayyuhal muminuun waxul yaa al parce que li mu wax jé jéggi na ñooñu ñëpp yaa ayyuhan naas la yow nit yéen nit ñi inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa maa leen bind man jaarale leen ci ay góor ak jigéen wa jaalnaakum shuuba wa qabaila ma def leen ngeen di ay xeet ak ay euh, nation lu taa ma def ko li taarafu ngeen kenn ku ne la ko manqué mu xam fan la nekk mu jëli ko taar yàlla def ñoo bind wuutaluñu parce que wuute gi moo ñu arrangé parce que mënuñoo mënuñoo am jàmm te mbatuñ matuñ te mat xajul kenn ci ñun kon li ci génn mooy ñu tas ñu ko ñu tas ñu tas mat mat ci ñun kenn ku nekk am ci mat dara li taarafoo mooy nga xam li la manque ci mat ci kan la nekk nga jëli ko moo tax ku la gën a jaxaseeg nit ñi moo la gën a mat moo gën a nite aussi suñ mbokk Saalum Saalum dañuy wax naan bàyyi fu may xëy yaay may ma ñeex ku ca juddu ba am jabar koo xulool yàq ko parce que doo xam tus ki la gën a mën a jëflanteeg nit ñi gën laa nite mooy ki la gën a jaxasoo nit c'est-à-dire ki la gën a dajale li ko manqué woon ci man ki la gën a dajale li ko manqué woon ci man ba gën laa mag loolu mooy li taaraf léegi nag comme yéen gënante daf leen a neex kaay ma wax leen lu ngeen di natte gënante mooy inna akramakum indallahi atqakum acca commencé leen inna akramakum indallahi atqakum comme mun leen a ñàkk gënante ngeen bëgg gënante gënante leen waaye nag ci fi ngeen mane fi ngeen mane ngeen mën a gënante mooy ci wàllu ragal yàlla ibnu taymiya rahmatullahi alayhi wax na wax bu rëy rëy dafa ne walilahi dafa wax ne laysa fi kitaabillahi ayatun waxida yamdaxu fiha ahadan bi nasabi nee na alquran amul benn aaya bu ñuy taggee kenn ndax juddoo amul ci alquran benn aaya bu bu yàlla di taggee nit ndax juddoo amul ci alquran benn aaya bu yàlla di xas nit ndax juddoo kon juddu moom nañ ko tege de côté juddu moom mënut a nekk ay gënante mun a nekk gënante ndax doonoo ci dara li yéeme nag mooy fi lislaam jaar ak ñun côté boobu wax ji ci lislaam wax ni mu leeree seytaane fexe na bañ fàtte ko ba fàttali ci lislaam wax wala ñu fàtte fàttali ko les sourate Hijr bi ma jàngale sourate aaya 13 lan la inna akramakum inda Allahi atqakum ki gën da ngeen a bëgg ah, mu ne kii gën a ragal yàlla mooy ki gën a baax wala ku la gën a ragal yàlla mën a gën a baax ki gën a jub ki ëpp njariñ loolee baatu ragal yàlla mooy jub parce que ragal yàlla loolu lay jëriñ ragal yàlla li muy jëriñ mooy jubóog sa borom jubóog sa morom te ku jubóowul ak sa morom doo jubóog sa morom te lii tax nga jubóog sa morom mooy nga amal sa morom njëriñ te doo ko lool loolu ku ragalul yàlla mënu ko parce que ki ragal yàlla d'abord day jëkk a xam li yàlla bëgg ko def mu def ko ba pare ba pare nag di di xool yàlla ci li muy jëflante nit ñi kooku ragal yàlla kon ki ragal yàlla ñaari charte ñoo cëpp solo mooy d'abord day jaar fi ko yàlla jaarloo ñaareel bi mooy buy jëflanteeg nit ñi day bàyyi xel yàlla kooku ku ko def amal nit ñi loolu lu leer nañu loolu amul ma dem te dikk amul interprétation borom bi tabaraka wa taala wax in awliyaa in awliyaa wala inna awliyaa noonu in awliyaa in awliyaa mu ne ñii dong ñooy ay waliyoom yàlla ay waliyoom ay xaritam ay soppeem mooy ñi ko ragal même chose loolu leerul lañ kon ku bëgg a gën nit ñi da nga leen di gën a ragal yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam feelu ko ne laa fadl li arabiyin ala ajamiyin wala ahmara ala aswada illa bi taqwa yonent bi nee na gënante nekkul diggante arab ak ku dul arab diggante nekkul diggante ku ñuul ak ku weex waaye diggante gënante mu ngi nekk ci gën a ragal yàlla loolu tam dafa leer nañ amul interprétation yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na inna ala abi fulaan laysu lii bi awliyaa innama waliya allahu nee na ñoom sama doomu bàyyi diw diw du ñoom ñooy samay xarit waaye sama xarit mooy jullit yi mooy ñi gëm yàlla mooy ñi baax lii yëpp yonent yàlla Muhammad wax ko nga xam ne bu ñu dégguloon aay yi sax mën nañoo sukkandiku ci waxam ji ba xam li aay wax Iblis taxaw temm rek ne nañ ko fàtte ñu taxaw temm bëgg a gënante ci ay xeet bëgg a gënante ci juddu ba na a yàq li ñuy def mooy bu ñuy tànnati ñu jiite duñ ko tànn ndax li mu gën a mën a jiite mais dañ koy tànn ndax li mbokk ñun làkk wala li mbokk ñun dëkk. wala li mbokk ak ñun daay wala li mbokk ak ñun tarix loolu c'est très dangereux te duñ ci génn ci génn loolu ñu ci génn duñ ci génn de nañu def li ñu dig mooy ku mu neex nekkal lu la neex kenn ku ne na nangu fa ko yàlla def ki nekk wolof na sant yàlla ci nekk gi mu nekk wolof ki nekk séeréer ne sant yàlla ci nekk gi nekk séeréer am na lu tax Haalpulaar bi noonu ki nekk jullit sant yàlla ci gindi ki koy saan gindi ki nekk jullit nekk murit sant yàlla ci waaye ko képp koo xam ne da ngaa responsabilité bi ñuy joxe ci réew bi kenn du ko jox ku dul koo bokkal tarixa wala ko bokkal diine wala koo bokkal waaso nar ngaa indi jafe-jafe ci dëkk bi parce que bu ko ñëpp defee di sotti kon nañ bàyyi caaxaan li ma ci gën a métti nag mooy ñu koy wax gëmuñ ko ay truand lañ ay ay ay faux type yu bëgg a di wut yoon wu gën a gaaw waaw parce que diw diw sama mbokkum taalibe après yow dangaa nekk taalibe ba yut mbokk xanaa bala ngay nekk taalibe nekk julli wala est-ce que nit mën naa nekk taalibe te du nekk julli est-ce que ñun ay julli lañ est que fen lu mel noonu nit ab julli dana ko fen moo war ko ne day fen ñi mu wax ne ànduñ parce que kee taalibe la moo tax ànd moo war ko ne day fen moom yonent bi nee na jikko ju bon junni jullit dana ko boolee nekk jul ba mu des fen yow kon génn nga ci julli nooy nekk taalibe boo nekkul taalibe fooy ànd ay mbokkum taalibe waaye sénégalais yi ñu garaaw lañu sénégalais yi il faut ñu wax ci ñoom de surtout jamono yi ñu nii nii nii man xeetu Sénégal yi ma gis léegi nii foo ñu wax ci ñoom de parce que seen dund tey bi jar na la dëkk bi takk seen dund tey bi jar na la réew mi tas loolu nun war a koo nam kon mbokk julli yi nañ bàyyi xel ne li ñu jig mooy ñu nekk ay jullit ñi gëm yàlla gëm yont yàlla Muhammad ne mooy mu jot ñu nekk ñi ci des nekk lañ gëm ne moom lañ réew mi comme loolu la yàlla dogal ba léegi te amuñ ci problème xam nga fu nekk la question boobu waroon posé wu ba mu des Sénégal ren Sénégal réew boo xam ne quatre-vingt-dix-sept pour cent ay jullit lañ quatre vingt dix du quatre-vingt-quinze quatre-vingt-quinze bi dañ ko wax tàmm suñu làmmiñ rek di ko wax mais 97 bu ko ëpp na ko et ay jullit lañ ki fi njëkk a nekk président de la république nekk minorité ci diine nekk minorité ci xeet parce que séeréer la te séeréer duñ majorité Sénégal waaye catholique la catholique duñ majorité Sénégal mu yor ñu fi ñaar fukki at bon baax na baaxul en tout cas bàyyi na réew mi ak jàmm. parce que loolu tam loolu la ñu ñaan ñëpp ku mën ta defar it bàyyi ko bu ko yàq bul yàq parce que dafa am ñoo xam ne ñoom dañoo bëgg a yàq moom en tout cas bi mu bi mu xoolee man pour man defaru defaru waaye yàqu yàqu c'est-à-dire bàyyi na fi république bi bàyyi na fi bi ñu ñu lijjantiwaat ba mu ko joxee ka ko doy koo ko jox yor ñaar fukki at moom itam ñun lijjanti nañ ba jëlee suñu bopp suñu àll. loolu bu tasoon réew mi nga ko mën kooku ñëw def fi moom itam fukki at ak ñaar moom itam ak lu mën a def en tout cas bàyyi na fi réew ko loolu la ñuy ñaan ñëpp rek na ko na ko ñëpp def moom ku mënta liggéey it nii rek ñun bu danañ mas a daje ku mën a liggéey liggéey bu yàqu léegi nag dafa mel ni équipe bi ma gis am na ci équipe bi groupe yoo xam ne dañoo bëgg tas comme léegi nañ ko far nañ ko far tas bu jeex. lool non ñun tas ko arrangé wul ñun Sénégal dañoo bëgg mu des nekk am réew réew mu normal wuñ pétrole soxlawuñ gaz li li si kër dunde ba mbay jaaw mën na koo continuer mbay mi donc nañ ñu bàyyeeg suñ mbay mi rek suñ suuf si te yàlla ji taw wala ñu ñu for bu fekkee seen pétrole bi ngi la ñu indi kër nañ ko jëlaat nañ jëlaat seen pétrole ñu soxla aqulu qawli hada alhamdulillah alhamdulillah wa salaamun ala ibadihi alladina astafa alayhim wa ala imamihim wa afdalihim sayyidi wa habibi abil qasimi muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi muhtadin ayuha al-ikhwatu al-muslimun innama law ta'ammalna sirat as-salaf as-salih radiyallahu ta'ala anhum kayfa kanat ukhuwatuhum wa kayfa kanat hayatuhum lawajadna lawajadna annahum lam yakun indahum hada al istinkaaf wala hada al istikbaar wala hadihi al jaahili mbokk jullit yi ñun sénégalais yi wax dëgg yàlla buñ góorgóorloo génn ci ndax problème boobu réew yu bëri am na amoon na fa menace mais fii moom yàlla suturaal Sénégal président Senghor ku nekk contre na ko waaye man musuma dégg ku ne dafa contrôle Senghor parce que li muy catholique a tax musuma koo dégg ku ne contre na parce que doxalinam neexu ko woon te kilifa diine yi fi nekkoon bu doon loolu duñ nangu Senghor gañe toog fi duñ nangu Senghor dal ci kaw président Dia ba jële ko fi man jàpp ma ne dañoo jàpp ne Senghor a gën ci wàllu diine président Dia jàpp ma loolu parce que loolu moom mënu ma ko séntu ci suñu kilifa damaa jàpp ne gëmuñu woon ne Senghor ni ni Senghor gëme christianisme moo gën ni président Dia gëme lislaam gëmuma loolu man li ma gëm mooy ñun wutuñu euh, ab pape wutuñu imam président de la République lañu te président la République ba précontré Senghor a ko gën man monsieur président Dia loolu laa gëm même bu ma ci d'accord la ñoom man d'accord ma ci loolu man pour man président Dia moo gën Senghor ci gouver ci réew njiitu réew waxuma ci jàkkale ci la gëm mais ñoom xëy na dañoo gënoon ne président Dia moo gën a mën a yor réew Senghor ñu jox ko amul problème Senghor jóge fi président Abdou Diouf ñëw jullit la gaa mais kenn laaj ñu bantara kala ba musa dem fenn ne man boo gise ma leen laaj Sénégal parce que man ab tijaan la wala ab murid la mosuma koo dégg mu nekk fi mel na maître moo fi ñëw wax ban tariqa la bokk te ba mu koy wax booba nekk gul président la wax dëgg yàlla mouridisme Wade gi nëbb ko woon dëpp mu nekk opposition gisinam dafa gis ne moom murid saadiq la te da koo war a manifester loolu kenn mënu koo xay xanaa ku koy dal da wax dara da koy wax da ngay benn benn pratique bu mu def boo xam ne da cee feeñal gën leen bu boobaa du jàpp waaye bu loolu amul kenn mënu koo xañ mun avant muy nekk président mu wax ne moom taalibe waaye léegi ñun ñun ñun ñunu fii sénégalais moom sénégalais ba xam nga beneen réew bu dul fii fii moom mu bu ñu fi am président normal foog mu nekk murid wala mu nekk tijaan wala mu nekk imaan wala mu nekk catholique yaakaar na ah man xaw fi benn Sénégal bu boobu kon nañ bàyyi noonu rek ñu wax waaye nag kii ñëw nañu wax lu leer lan la bëgg ak fan la ñu jëme puisque am na koo xam ne même bu dee taalibe wala muy ab jullit bu faloo jullit yi day sonn taalibe day sonn catholique sonn am na koo xam ne bu faloo même bu dul taalibe du tijaan du murit bu faloo tijaan yi danañ am liñ bëgg murit yi am ko ibaadu yi am ko kooku la ñu wut yàlla nañ ko yàlla woon aqulu qawli hada wa astaghfirullah